bismillahi rahmaani rahim ñu ngi ci garabug tuuba ci xaaju juróom ñaareel bi ci ñeen fukk ak juróom benn ci leen toll sëriñ bi xaadalahoo allahu maxtaaralahoo nee na téere bi nahjul xaqiqa fi hatki sitril xaqiqa la ko tudde yoonu dëgg wéy leeral mbirum tudd ak lu ci aju maa ngi sant sunu boroom bi nga xam ni kenn la jurul kenn kenn juru ko tey julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi moom mi sopp ci képp ku am doom am tudd ak i ñoñam ak i ak képp ku koy roy ginnaaw loolu lii ay way la yoo xam ni day leeral mbirum tudd ak lu ci aju am tudd mooy lañuy rey ci bisub juróom ñaareelu doom ja judd benn gàtt ngay rendi boo xam ni am xar lay doon wala béy day am menn at bu dee xar bu dee béy day am at ba tàbbi ci atum ñaareelam du doon lu pat du doon lu tawat du doon luy soox soox gu fés noonu mu ñëwee ci arisaala boo ko mënee mën ngaa rendi ñaari gàtt itam ngir li ñuy nettali al imaamu malik radiallahu taala anhu am na doon am na doom juma doon tudd dama rendi benn gàtt ci guddi gi woo samay mbokk ak ñeneen rendi gàttu tudd ba jox ca samay dëkkandoo ñu lekk ñu lekk ni ñu lekkee moo tax ku ko man bu la neexee def loolu gàtt boobu ca bisu juróom ñaareel ba ca bëccëgal lañu koy rey bu fekkee doom dadu dund na ba ca bis booba waaye deefu ko tudd bu dundul ba ca bis booba noonu la ko imaamu malik waxe radiallahu taala anhu lañu sopp nag mooy mu nekk yoor yoor ba tisbaar dagan na itam ginnaaw tisbaar ba jant bi so waaye danañ ko sib boo koy def itam danga nga koo war a def ngir jaamu yàlla subhanahu wa taala ci dundal sunna si yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi su ko defee borom xam-xam yi am nañu ak wute ci atte bi am na ñu wax ni sunna la waaye dëgërul lool am na ñu wax ni warteef la am na ñu wax ni dañ koo sopp am na ñu wax ni daa dagan li gën a wóor ci wax yooyu mooy dañu koo sopp ku ñuy wax abul mawaddati loolu la leeral radiallahu taala anhu boroom risaala nee na suñu sopp la ñi koy leeral am na ko wax ni li mu ci jublu sunna la ngir wuuteeg ñiy wax ni daa war li tax mu teg ci lu ñu sopp day leeral ak wuuteem ak ñiy wax ni daa dagan wala daa bëgg a wax ni benn muy sunna wala muy lu ñu sopp wala daa bëgg wax ni aw yoon la wu ñu sopp fu mu soq ko nag mooy lii Ahmad radiallahu taala anu nettali mu jugee ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na képp ku juddu dañu koy tayle ca am tuddam daa wax ni maanaam hadis bi mooy doom ju nekk du mën a ràmm ñaari way juram li feeg ren li ñu ko am tudd am na ñu wax ni jublu gi mooy doom ju nekk day mel ni ku ñu tënk ci def yu baax yi ak yiw yi ak dolleeku li feeg ren li ñu ko am tuddu am na ñu wax ni jublu gi mooy doom ju nekk ak muccam ci mbooleem gàkk yi mi ngi ci gàttub tuddam su ko defee nu xam nu li tàmbalee yoor yoor ba tisbaar mooy waxtu wi ñu sopp li tàmbalee tisbaar ba jant so mooy waxtu wi ñu sib naka noonu ginnaaw bu fajar xaree ba jant bi génn bu dee guddi gi day xaraam boo ci rendee itam du doy ibnul maajis woon nee na bu ko rendee njëkk jant bi di génn dana doy am na ñoo xam ni loolu lañu sukkandikoo asurganiyu o nee na li ñu sopp mi ngi amee ci bu jant bi génnee doonte naa fi la daganagul wallahu taala alam su ko defee doom ju nekk daa war a am am tuddum boppam moo xam góor la wala jigéen bu dee ñaari doom ñaari gàtt lay doon wuuteeg ñi wax ni bu dee jigéen benn gàtt lañu koy tudde bu dee góor ñaari gàtt ko am ay seex kenn ku nekk da koy wutal koy wutal tuddum mboppam sopp nañu ko wat xale ba ca bisub tudd ba te mu njëkk rendi ga te saraxe lu tolloog moom kawar ga ci wurus wala xaalis a tirmisi yu andi na ci téeréem bi ni sayiduna aliyu karramallahu wajhahu nee yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa moo tudd sayduna alxasan ci am kuy ni fatima watal bopp bi te saraxelu tolloog moom kawar gi ci ab xaalis ba mu ko defee mu tollook ab dërëm wala lu ko yees ku ko man kon dangay saraxe loolu doora rendi ba tey sopp nañu bu ñuy joxe turwa mu doon ci bisub juróom ñaareel ba bu fekkee dana amum tudd bu fekkee tudd ma amul manees naa joxe tur wa njëkk loolu bu fekkee daa faatu njëkk ñuy rendi am na ñu wax ni manees na ko joxu tur am na ñu wax ni deesu ko def la gën a wóor mooy manees na ko ndax ndax doom la ju ñu yaakaar muy ram bu fekkee dañoo joxewul tur wi ba rendi mu door a faatu ñépp maase nañu wax ni dees na ko tudde aw tur ko andi waaliwul bakkan maase nañu wax ni deesu ko wutal aw tur ku andi bakkan daadi di faatu la gën a siiw moo di deesu ko wutal aw tur sopp nañu itam gàtt boobee ku ca lekk sarax ca ay dëkkandoom ak i waa këram alfaakihani yu nee na loolu moo gàttu tabaski ñoo ci yam amul benn tay daytal bu ñuy wax ca la ngay saraxe ak la ngay lekk boo rendee saraxeel dara ca ndawal ga naka noonu boo toggee ba noppi ca nga jëfandiku ca loolu sopp nañ ko loo ci bàyyi bàyyi nga li sopp naka noonu na nga ca leele sim nañu di dajale aw nit ngir moom ngir mu mel ni aw xew ngir ragal lu mel ni ëpplante ak ndamu dañoo war a togg la ñuy togg sarax ca dëkkandooya ak faqiiri te lekk ca mënees na caa dindi dara itam lu mel ni ren ni baneen gàtt bu dul bopp tudd ba woo ca aw nit loolu mën naa nekk ngir li nu nettali ci ginnaaw mu jugee ci al imaamul malik radiallahu taala anu lu mel ni di ci jaay dara daa xaraam moo xam ak ndawal la wala ab der kii fees itam loo ko cay jox na doon sarax naka noonu jigéen ji doon dooj jigéen ji doon dooñ itam loo ko cee jox na doon ab sarax te bañ a doon lu mel ni ak fay baroom maddaxal nee na am na lu bari lool ci jamono jii te warees na koy moytu lool mooy indi gàttu tudd naan day jox der bi ak bopp bi ak fàllare ji ki ko doon defar loolu xaraam na ba tey nee na wareesuta def ko mu mel ni aw xew di ci woo nit ñi ndax saxaaba ya ko def radiallahu taala anhum imaamu malik radiallahu taala mas nañu ko laaj ni ko ndax manees na caa defar aw ñam di ci woo nit ñi mu mel ni ku ko taamuwul ni day nuru xewu kuy am soxna dañoo war a togg joxe te saraxe te jëfandiku gàttub tudd nag am na ay njariñ bokk na ci topp sunna si yonante bi sallallahu taala alay bi alihi wa sahbi wa sallama ak neenal ak wattu xale ba ci mbooleem gàkk yi noonu mu ñëwee ci hadis bi te def sunna si yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi ci la yiw yëpp nekk ak barke safaanu biddaa am na ku ñuy nettali di wax ni ay àndandoom dañu daan ñëw këram bu ñu duggee gis wurus wi ak xaalis bi tasaaroo te kenn du ko laal ay doomam di dem ak a ñëw ñu ni ko yow sunu sang lii réeral alal la mu ni leen déedéet mi ngi ci kaaraange ñu ni ko anamu mu ni leen asakaam génn na te loolu moo koy sàmm naka noonu gàttub tuddu day wattu doom ji moo tax képp ku am xel war nay faylu bu war nay farlu bu baax ci di ko def ndax boole na wattu xale bi ak wattu alal ji te boo deful alal ji ngay def gàtt bi faaw nga def ko ci yeneen yoo xam ni ay bidaa doon yoo xam ni mën naa waral ay gàkk ci xale bi dana waral tuyaaba ju bari moom ab gàtt lay wax dana waral moom am tudd dana waral tuyaaba ju bari ngir topp sunna si yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam rawante naag jamono jii nu nekk nga xam ni topp sunna da cee néew boo ci toppee sunna sa tuyaaba mooy gën a bari ndax yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa wasalama nena na ku dundal benn sunna ci samay sunna ginnaaw ba mu deexee mel na ni dundal na ma te képp ku ma dundal ànd ak man ajjana maa ngi sant yàlla subhanahu wa foofu la téere bi yam ci ndimbalul yàlla subhanahu wa taala yàlla na dolli yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama tedd nga akug wóolu moo ki ñoñam ak i saabaam radiyallahu taala lool mi ngi ci xatu téeméer ak juróom fukk ak juróom ci diwaanu diyaafatul quddus wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaada lahoo allahu maxtaara lahoo bi mu jullee ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi ba noppi lii la wax yow boroom bàkkaari jugal julli ñeenti rakka ngir yàlla subhanahu wa rakka rakka bu ci nekk nga jàng fatiha aku boo jàngee fatiha aku saar ba noppi waxal subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allahu wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi alali alazim na nga ko wax fukki yoon ak juróom boo rukkoo wax ko fukki yoon boo bi wax ko fukki yoon boo sujoodee wax ko fukki yoon boo suggee ci sujood bi wax ko fukki yoon boo boo suggee ci sujjoot bi wax ko fukki yoon loolu boo ko xoolee rakka bu nekk juróom ñaar fukk la cay doon ak juróom nii nga koy def ci ñeenti rakka yépp boo ko mënee di ko saxal dee ko saxal bis bu set wala ajuma ju nekk benn yoon wala weer wu nekk benn yoon wala at mu nekk benn yoon wala benn yoon ci seg dund rakka bu njëkk bi ginnaaw fatiha suratul ala nga ciy jàng bu ñaareel ba suratu zilzali ginnaaw fatiha bu ba kaafiroon ginnaaw fatiha bu ba qul huwa allahu ahad ginnaaw fatiha boo ba noppi jàng ñaan gi door a salmal mi ngi nii allahumma inniya as'aluka tawfiqa ahlil huda wa amala ahlil yaqin wa munasahata ahli tawbati وعزم أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك مخافة تعجزني بها عن معاشك وحتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رداك وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حبا لك wa hatta atawakkala alayka fi l umuri kulliha husna zannin bika subhana xaaliqi l nuur rabbana atmim lana nuurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin boo ko jullee nii ngir sàkku tuyaaba ak dëggal li ñu nettali sunu boroom dana la jéggal sa bàkkaar yépp yu jiitu ak yu mujj yu ndaw ak yu mag yu yees ak yu màggat yi nga tey ak yi nga teyul yu nëbbu ak yi feeñ kon beel julli te am lenn looy werante mi ngi ci xatu fukk ak juróom ñett ci diiwaanu majmau nuurayni fi fawaidi daarayni li ahmad al xadim xaala lahu llahu xaada lahu llahu maxtaara lahu wallahu alam sëriñ bi mu jullee ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi mi ngi ñaan julli gi doon loo xam ni sunu boroom da ciy def bayit yi muy bëgg a def ñuy lu am njariñ ci adduna ak alaxira ci moom ak ci képp ku leen am wala mu jëf ci dara ci reer jay yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi te bokk ci jëf yi de sàww dooni yiw ba waxe loolu la tàmbali di wax te nee na yàlla kese la jublu yow mi wut ngërëmul yàlla subhanahu wa taala del sonn ci alxuraan moo gën a yay maa ngi lay leeral boo bëggee wàcce alxuraan ci subuh wala ñetti fan wala ñeenti fan ni ngay def bu dee subuh da ngay tàmbali bisub dibéer jàng ñetti saari te mooy nga tàmbalee suratul baqara ba ci mujjug suratul nisaa bisub altine bi nga xam ni ci lay yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi gane adduna nga jàng juróomi te mooy nga tàmbalee suuratul ca mujj suuratu tawba bisub talaata nga jàng juróom ñaari saar te mooy nga tàmbalee suuratu yunus ba ca mujj suuratu naxli bisub àllarba nga jàng juróom-ñeenti saar te mooy nga tàmbalee suuratul isra'i ba ca mujj suuratul furqaan bisub alxamis nga jàng fukki saar ak benn te mooy nga tàmbulee suratu shu'ara ba ca mujjug suratu yasin bisub ajjuma nga jàng fukki saar ak ñett te mooy nga tàmbulee suratu yaqatiin ba ca mujjug suratul xujuraat bisub gaaw nga jàng saar yu gàtt te mooy nga tàmbulee suratul majid ba ci mujjug suratul naas boo bëggee wàcc alxuraan ci ñetti fan laa lay leeral da ngay tàmmulee suratu baqara ba ca maayun fi xuun ci suratu tawba bu ëllëgee nga tàmmulee innama sabilu ba ca maa tas naun bu ëllëgee nga tàmmulee wala tujaadiloo ba ca minal jinnati wa naas boo bëggee wàcc alxuraan ci ñeenti fan digluma te kaweel sa hitte te not sa bakkan da ngay tàmmulee suratul baqara ba ca mujjug suratul anaam bu ëllëgee nga tàmbalee sooratul araaf ba ca mujjug sooratul kahf bu nga tàmbalee sooratu maryama ba ca mujjug sooratu fatir bu ëllëgee nga tàmbalee sooratu yasi ba ca mujjug sooratu naas maa ngi ñaan sunu borom mu dolli yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama tedd aku góolu moom minu andil wax ji aki ñoñam aki sahabaam sunu boroom dellu ko dolli ko tedd nga moom mi nga xam ni ak dundam lépp lu ñu sant la te wax na ci alxuraan loo xam ni saafara na ma te soril ma yeddaa nga subhaana rabbika rabbil xisati ama yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mi ngi ci xatu juróom fukk ci diiwaanu wallahu aalam sëriñ bi xaada lahoo law maxtaar lahoo bi mu sàkkoo ndimbal ci baroomam ba noppi lii la wax maa ngi sant sunu boroom bi digle julli yi tey julli ci yonante bi sallallahu taala bi alihi wa sahbihi wa sallama ak i ñoñam ak i sahabaam ak képp kuy farlu di leen roy ginnaaw loolu maa ngi ñaan sunu boroom mu dimbali ni ci ak njub na ngeen xam ri na ngeen xam ni ñaari rakkaay kuy topp sunna si yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama gën ñaari junni rakkaay kuy topp bidaa topp sunna si yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi mooy yoonu ajjana topp bidaay mooy yoonu sawara loolu moo waral ma jug ngir leeral loo xam ni sunna su yonente bi la sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci guddi yi ak bëccëg yi maa ngi ko tànqe ci géejug cheikh abdul xadir jeylaani radiallahu taala anu fukki dog laa ko def ak ñeent julli guddi laay jiital ci julli bëccëg yi safinatul aman lil xaaifina lu jajan niiraan laa ko tudde gaalu kóolute ci képp ku ragal tabbi sawara dog bu njëkk bi ci julli guddig dibeer maa ngi lay xamal ni bu waxee guddig dibeer mooy guddi gi jeetu dibeer ndax guddi yi ñoo njëkk am ba yi wallahu aalam nii la ñëwee ci téereb cheikh abdul xaadir aljiliyu radiallahu taala anhu bi ñuy wax alxunya anas ubnu malik radiallahu taala anhu nee na naa ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi mu ni ku julli guddig dibéer ñaar fukki rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon ak xulu walaaw ahad juróom fukki yoon ak fàllaxi ak naasi lu ci nekk benn yoon boo noppee wax astaghfirullah alazim téeméeri yoon ak astaghfirullah alazim li wali walidayya téeméeri yoon julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama téeméeri yoon ak la hawla wala quwwata illa billahi alali azim te wax lii mooy ashhadu an la ilaha illa allahu wa ashhadu anna aadama safwatullahi wa fitratuh wa ibrahimu khalilullahi azza wa jalla wa musa kalimullahi taala wa xiisa ruhullahi subhanahu wa muhammadan habibullahi azza wa jal sunu boroom dana ko bindal ci tuyaaba lu toll ni limum ñi ni yàlla am na doom ak limum ñi dul wax loolu te bu ëllëgee dana bokk ci ñi am kóolute te sunu boroom dana ko warlul ak tàbbeem ajjana mu andi ab dog ci jullig bëccëgug dibeer abu hurayra radiallahu taala anhu nee bi sallallahu taala alayhi ku julli bisub dibeer ñeenti rakka rakka bu ci nekk mu jàng ca fatiha ak amana rasulu benn yoon sunu dana ko bindal limum nasaraan yi góor ak jigéen ci aw yiw dana ko jox ca àjjana ci rakka bu nekk tuyaa bay ab yonente bindal ko tuyaabay ak xaj ak xumra bindal ko ci rakkaa bu nekk junniy julli jox ko ci àjjana ci xaraf nekk ab dëkk bu ñu defare misk ba tey sayduna aliyu karamallahu wajhahu jële na ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama muy dee leen yàlla subhanahu wa ci bëri li ngeen di julli ci bisub dibéer ndax sunu boroom kenn la amul ku ko ñaareel ku julli ci bisub dibéer ginnaaw tisbaar ñeenti rakka ginnaaw sunna si rakka bu njëkk bi mu jàng ca fatiha benn yoon ak suratul sajdati bu ñaareel ba fatiha benn yoon ak suratul mulk bu taayaa ba sëlmal julliwaat yeneen ñaari rakka bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon ak suratul jumaati bu noppee lu mu ñaan sunu borom dana ko ko defal te dana ko setal ci ak nasaraan mu ñëw ci ab dog ci ngëneelu julli guddik altene ku ñuy wax anasum nu malik nee na bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa ku julli ci guddik altene ñeenti rakka bu njëkk bi mu jàng ci fatiha benn yoon ak suratul ixlaas yi fukki yoon bu ñaareel mu jàng ci fatiha benn yoon ak suratul ixlaas ñaar fukki yoon bu ñetteel bi mu jàng ci fatiha benn yoon ak suratul ixlaas fanweer yoon bu ñeenteel bi mu jàng ci fatiha benn yoon ak sootul ixlaas yi ñeent fukki yoon bu taayaa ba salmal jàngal ixlaas yi juróom ñaar fukki yoon ak juróom wax astaghfirullah li wali walidaya juróom ñaar fukki yoon ak juróom julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa juróom ñaar fukki yoon ak juróom lu mu ñaan sunu boroom dana ko ko jox moo tax ñu koy tudde jullik xaajo ba tey abu umaama radiallahu taala anhu nee na yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa ku julli ci guddi altene ñaari rakka bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon ak suratul ixlaas yi fukki yoon ak juróom bu sëlmalee jàng ayatul kursi yi yoon ak juróom wax astaghfirullah al asim fukki yoon ak juróom sunu boroom dana ko bind ci ñooñ ajjana doonte ci ñooñ sawara la bokkoon te dana ko jéggal bakkaaram yi feeñ yépp te dana ko bindal ci xaraf wu nekk tuyaabay xaj ak xumra te bu faatoo ci diggante ñaari altine yi dana mel ni ku faatu ci ab xare mu ñëw ci ab dog ci ngeneelu jullik bëccëgug altine jaabir ibnu abdullah radiallahu taala anhu nee na yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama na ku julli ci bisub altine waxtu yoor yoor ñaari rakka rakka bu ci nekk mu jàng ca fatiha benn yoon ayatul kursi yu benn yoon lixlaasi ak fàllaxi ak naasi lu ci nekk benn yoon bu sëlmalee wax astaghfirullah alasima fukki yoon julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama fukki yoon sunu boroom jéggal ko bàkkaaram yépp ba tey anas ibnu malik radiallahu taala anhu nee yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na ku julli ci bisub altene fukki rakka ak ñaar bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon ak ayatul kursi yu benn yoon bu sëlmalee jàng suratul ixlaas fukki yoon ak ñaar wax astaghfirullah alazim fukki yoon ak ñaar bu yowmal xiyaamee dana am ku woote ana diw doomi diw na jug jël ak fayam ci yàlla subhanahu wa su ko defee lañu koy njëkk a jox mooy junni ko daay solal ko ndëpp ni ko demal ndëppul mbaxana mu bi mu mu buur yi sol la moom ndëpp moom lañ koy solal ni ko demal ni ko demal dugg ajjana mu ànd ak lu mat téeméeri junni malaaka ñu koy gunge malaaka mu ci nekk yore haddiye ju mu koy jox ànd ak moom ba mu wër lu mat junni tabax yu mag yu ñu bind ci leer guy leer leri ñu ànd ak moom wër lu mat junniy tabax yu mag yu ñu binde ci leer guy leer lari ñu ñëw ci ab dog ci ngëneelu jullik guddik al talaata yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa nee na ku julli ci guddik talaata fukki rakka ak ñaar rakka bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon sóoratu nasri juróomi yoon sunu boroom dana ko tabaxal ci àjjana kër goo xam ni ëpp na adduna lu mat juróom ñaari yoon abdok ci ngeneelu jullik jullig bëccëgug talaata annas ibnu malik radiallahu taala anhu nee na yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama nee na ku julli ci bisub talaata fukki rakka waxtu yor yor rakka bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon ayatul kursi benn yoon sootul ixlaas ñetti yoon deesu ko bindal bàkkaar lu mat ñaari weer ak fukki fan te diggante bi bu ci faatoo dana melnu nu ku faatu ci ab xare te dees na ko jéggal bàkkaari juróom ñaar fukki at li ab dog la ci ngëneelu jullik guddik àllarba yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama neena ku julli guddik àllarba ñaari rakka rakka bu njëkk bi mu jàng ci fatiha benn yoon suratul fallaxi fukki yoon bu ñaareel bi mu jàng ci fatiha benn yoon sóorutu naasi fukki yoon lu mat juróom ñaar fukki junniy malaaka danañu wàcc ci jépp asamaan di ko bindal tuyaaba ba yawmal xiyaam li ab dog la ci ngëneelu jullig bëccëguk àllarba maha sumnu jabalin radiallahu taala anhu nee na yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee ku julli ci bisub àllarba waxtu yor yor fukki raka ak ñaar raka bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon ayatul kursi benn yoon suratul ikhlas ñett yoon suratul falaq ñett yoon suratul nas ñett yoon dana am malaaka mu woote ca aras ni ko yow jaamub yàlla bi tàmbulil say jëf mboolem la wey ci say bàkkaar jéggal nañ lañ ko jéggal nañ la ko kenn du la mbugal ci bàmmeel te doo fa am benn xat-xat wala ak lëndam te yowmal xiyaam doo fa am benn tartar te bis boobu dees na ko yëkkati li jëfi ab yonante ab dog ci jullik ngëneelu ngëneelu jullik guddik alxamis abu hurayra radiallahu taala anhu nee na yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa nee na ku julli ci guddik alxamis diggante timis ak gee ñaari rakka rakka bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon kursi yi yoon lixlaas yi juróomi yoon fallax yi juróomi yoon naas yi juróomi yoon bu sëlmalee wax astaghfirullah alazima fukki yoon ak juróom joxtu yaa baja ñaari way juróom dana mel ni matal na seeni xaq doonte da leen daa dog doonte da leen daa dog te sunu boroom dana ko jox lamuy jox si diix ya si ñoo topp ci yonente yi alayhimu salaatu wasalaam dana ko jox tuyaaba jooju ak ñi faatu ci xare li ab dog la ci ngëneelu jullik bëccëgug alxamis ibnu abbas radiallahu taala anhu nee yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa ku julli ci bisub alxamis diggante tisbaar ak takkusaan ñaari rakka rakka bu njëkk bi mu jàng ci fatiha benn yoon ayatul kursi yu yoon bu ñaareel bi mu jàng ci fatiha benn yoon suratul ixlaas yi téeméeri yoon bu salmalee julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama téeméeri yoon sunu borom dana ko jox ci tuyaaba lu tol ni wooru weeru rajab ak chamban ak ramadan te mel na ni ku xaj te dana ko bindal ci tuyaaba limuk ku gëm yàlla subhanahu wa taala te wakkirlu ci moom li ab dog la ci ngëneelu jullik guddik ajjuma asanoo si radiallahu taala anu nee guddik ajjuma diggante timis ak gee ku julli ñaari rakka rakka bu njëkk mu jàng faatiha benn yoon ak suratul silzali fukki yoon ak juróom des na ko fegal mbugalum bàmmeel jabir ibnu abdillahi radiallahu taala anhuma neena yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa neena ku julli guddik ajjuma diggante timis ak fukki rakka ak ñaar rakka bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon ak suratul ixlaas fukki yoon mel na ni ku jaamu yàlla subhanahu wa fukki at ak ñaar di yendoo woor di fanaane julli Anas ibnu Malik radiallahu taala anhu nee yonente bi sallallahu taala alayhi bi ku julli guddik ajjuma ku julli guddik ajjuma julli gee ci mbooloo bu sëlmalee julli ñaari rakkay sunna teg ca fukki rakka rakka bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon ak suratul ixlaasi ak fàllaxi ak naasi lu ci nekk benn yoon bu noppee wittar ci ñetti rakka daal di tëdd ci wetu ndey jooram kanamam jëm penku mel na ni ku dundal guddig laylatul xadr yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na dee leen bari lu ngeen di julli ci man ci guddig ajjuma akuk bëccëgam ab dog ci ngëneelug jullig bëccëgug ajjuma sayyiduna ali karramallahu wajhahu nee na yonente bi sallallahu taala alay bi alihi wa sahbihi wa ku julli ci yoor yoorub ajjuma ginnaaw bu jàppee njàpp mu mat mu julli ñaari rakka ngir gëm yàlla subhanahu wa taala ak sàkku tuyaabaam sunu borom dana ko bindal ñaari téeméeri yiw faral ko ñaari téeméeri ñaawtiif ku ci julli ñeenti rakka sunu boroom yëkkatil ko ca ajjana ñeenti téeméeri daraja ku ci julli juróom ñetti raka sunu boroom ko ca ajjana juróom ñetti téeméeri daraja ku ci julli fukki rakka ak ñaar sunu bindal ko junni yiw ak ñaari téeméer faral ko junni ñaawteef ak ñaari téeméer yëkkatil ko ca ajjana junni daraja ak ñaari téeméer abu hurayra radiallahu taala anhu nee na bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa ku julli suba ci mbooloo bisub ajjuma toog fa di tudd yàlla subhanahu wa taala ba jant bi génn am na juróom ñaar fukki daraja ca ajjana képp ku julli jullik ajuma ci mbooloo am na juróom fukki daraja ca ajjana ku julli takkusaani ajuma ci mbooloo mel na ni goreel na lu mat juróom ñetti jaam ci doomi ismail alayhi ku julli timisi ajjuma ci mbooloo mel na ni ku xaj xaj gu ñu nangu humra humra guñu nangu ibnu abbas radiyallahu taala anhuma neena yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam neena ku julli ci bisub aljuma diggante tisbar ak takusan ñaari rakka bu ñëkk bi mu jàng ci fatiha benn yoon ayatul kursi benn yoon suratul fallaxi ñaar fukki yoon ak juróom rakka bu ñaareel bi mu jàng ci fatiha benn yoon suratul ikhlasi benn yoon sooratul fàllaxi ñaar fukki yoon bu sëlmalee wax laa hawla wala quwata illa billahi aliyi alacim juróom fukki yoon bala moo génn adduna dana géntu sunu boroom subhanahu wa wala mu gis barabam ci ajjana wala kaneen gisal ko ko am na sàmmkatub xarab bu masa ñëw ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi ni ko nun danoo nekk ci àll bi sori madina lool du nu man di dikk ajjuma gu nekk xamal ma loo xam ni bu ma delloo dana ko mën a wax samay nit ci mbirum ajjuma yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi ni ko saa su bisub ajjuma dikkee dangay julli ñaari rakka waxtu yoor yoor rakka bu njëkk bi nga jàng ci fatiha benn yoon sootul fallaxi benn yoon rakka bu ñaareel bi nga jàng ci fatiha benn yoon sóoratu naasi benn yoon bootaaya ba sëlmal jàng ayatul kursi juróom ñaar fukki yoon fi nga toog julliwaat lu mat juróom ñetti rakka yoo xam ni ñeent yu nekk dangay ngay rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon sóoratu nasri benn yoon sóoratu lexlaas ñaar fukki yoon ak juróom boo sëlmalee wax laa hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim juróom ñaar fukki yoon maa ngi waat ci yàlla mi nga xam ni sama bakkan mi ngi ci loxoom képp ku julli julli gii nii ma ko waxe maa ko gàddul ajjana te bala moo jugee fa mu toog sunu boroom dana ko jéggal jéggal yitam ay wayjuram bu fekkee ay jullit lañu dana am ku woote ca xaras ni yow jaamub yàlla bi tàmbuli waatel seen jëf jéggal nañu ne la wéy ci say bàkkaar ak lu mujj julli gi bari na lool nga yu ñu ci wax yoo xam ni ku leen di leeral dana gudd lool ñu ñëw ci ab dog ci ngëneelu julli guddi gaawu anas ibnu malik radiallahu taala anhu nee na yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa na ku julli guddi gaaw diggante timis ak gee fukki rakka ak ñaar sunu boroom dana ko tabaxar kër gu réy ci àjjana te mal na ni ku sarax jullit yépp te set na ci ak yahoot te sunu boroom dana ko gàddul ak njéggal su ko defee sëriñ bi radiallahu taala anhu waxul saare yi ñuy jàng ci rakkaay yi wallahu aalam mu ñëw ci ab dog ci ngëneelu jullik bëccëgu gaawu abu hurayra radiallahu taala anhu nee na bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa ku julli ci bisub gaawu ñeenti rakka rakka bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon suratul kaafiroona ñetti yoon bu sëlmalee jàng ayatul kursi benn yoon sunu boroom dana ko bindal ci xaraf wu nekk ak xaj ak xumra yëkkatil ko ci xaraf wu nekk tuyaabay jaamuk am at moo xam ni da koy yendoo woor di ko fanaanee julli te dana ko jox ci xaraf wu nekk tuyaabay ku dee ci xare te bu ëllëgee caroon xaras lay nekk ànd ak yonante yi ak ñi dee ci xare alayhimu salaatu wasalaam gaalu kóolute foofu la mate ma jële ko ci xunyatu bu cheikh abdul xadir al jeylaaniyu radiallahu taala anhu waxan jamihi al awliya yi yal na ko yàlla subhanau wa taala fay aw yiw te faynu ni mu dindee ci ñun bidaa ak lor maa ngi ñaan sunu boroom nangul ma samay jëf ci darajey yonente bi sallallahu taala alayhi wa moom mi mel ni ak géej ci ak tabe tey merloo noon yi tey jubal ñépp tey sori la xalkane sunu boroom di dolli tedd nga li feeg boroom xel yi ñi ngi dundal sunnaam di rey moom ak i ñooñam ak saxaabaam yi nga xam ni dañoo maanu woon lool te daan téye seeni làmmiñ ci ay neen maa ngi wax loo xam ni dama koy wax ngir xemmem loo téere bi ci képp ku amuk dégg li may wax moo di képp ku ragal a tabbi sawara yéegal ci gaalu koolute képp ku sellal yéeg ci da am li nga bëgg da ngeen di sellal ànd ak teewlu ak ragal yàlla subhanahu wa ak sàkku tuyaabaam ndax aljaylaani radiyallahu taala anhu moo ko jële ci maamam mu jële ko ci yàlla subhanahu wa na ko yàlla def mu mel ni tur ci képp ku ko war war mooy yéeg ci darajay yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi ak darajay cheikh abdul xaadir jaylaaniyu radiallahu taala anhu mi ngi ci xatu juróom-ñaar ak ñeent ci diwaanu majma nuurayni wallahu aalam